waa di sant yàlla di sant yàlla gannaaw gi julli ci yonent bi alayhi salaam di gërëm sëñ Muntaxa Mbàkke bu baax a baax di ko ñaanal yàlla nag li ko ñëpp li ko ñaanal kuy jullit ak ku dul jullit sax ñu ngi ko koy ñaanal muy yàlla yokk ko wér gu yaram yokk ko euh, lépp loo xam ne luy dëgëral nit la ba mu mun a wéyale li nga xam ne mooy liggéey gi muy liggéey liggéey gu am solo ci yoon wi waaye liggéey gu am solo ci lislaam waaye liggéey bu am solo ci Sénégal ndax gis nañ li nga xam ne mooy taxawaayam saa saa su Sénégal jaaxle kon loolu ñu ngi koy ñaan te lu ñu tibbee suñu xol la du waxu politique gannaaw gi it ñu wax ni euh, mbégte la ci ñun teew fii euh, ànd ak suñu mag suñu xarit suñu partenaire ci wàllu politique waaye ci wàllu àdduna it di Alaaji Malick Gakou mm-hmm. ñu ñëw ci suñu tur waaye ñëw ci suñu turu coalition ndax dañoo bokk ci coalition muy yeewi askan wi ñëw ziare si euh, ci bés bu mag bi nga xam ne ki ñuy ziare dafa mat ñu war koo ziare muy soxna maam Diarra Bousso nga xam ne léeg-léeg dañuy faral di ko di ko tegtal wala di ko jox royuwaay jigéen ñi kese mm-hmm. waaye jàpp naa ni moom dafa weesu loolu képp kuy jullit war nga war nga koo jël comme royuwaay ci ni mu dundee ak euh, ni mu joxe boppam borom bi ba yàlla faye ko ko ni mu ko ko fayee moo indi tey Porokhane moo indi tey Touba moo indi tey feneen ak feneen kon kooku ku déplacé wu ñëw ziyaare ko rek danga ko war a def du loo xam ne danga nga koo def ngir ma Masamba wala ma Demba waaye lu war la kon am nañu mbégte ci teew fii euh, am nañu mbégte ci jàkkaarloowaat waat ak sëñ Muntaxa nga xam ne euh, boo nee jàkk rek jàkkaarloog moom gis dal gi gis euh, euh, yaatuwaay bi gis kanam gu leer gi dina am lu muy yokk ci yow ci paspas ci iman waaye dina am lu muy yokk ci yow ci li tubaab bi wax sérénité mooy dal kon loolu mbégte la loolu it ma wax ni am na benn relation bu am solo bu ñu am ak moom te lu bëri ci sénégalais xamuñu ko te loolu li ko jur mooy xooleewu ko rek bëtu xalif général di murit waaye dama ko xoolee bëtu maam bëtu baay te saa suyu ñëwee li ma ko faral di wax mooy dañoo ñëw déglu si dañoo ñëw jël si ay tegtal dañoo jël si ay ndigal dañoo ñëw weccoo xalaat ak moom te saa su ko defee ñu defee ko noonu mosuñu koo rëccu ñu wax nag ni ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko te bàyyi ko suñu kanam lu yàgg yàgg ndax réew mi soxla na ko réew mi soxla na ko diine gi soxla na ko yoon wi soxla na ko kon yàlla na ko fi yàlla yàggal ma daaneel nag ni dëkk bi bëri nañ fi ay wëllëre ndax sëñ Moussa Nawel ni ñu jàppee sëñ Muntaxa lañ ko jàppee euh, di koo xam ne it daf ñoo boole ci mbiram gis ngeen saa suñu ñëwee muy màggal muy feneen gis ngeen suñu dalal ak suñu waxtaan nu muy demee noonee nag lañ ko amee ak sëñ Bass Poroxaan nga xam ne euh, gannaaw bi réew mi yëngatoo ci euh, at ci gannaaw moom la sëñ bi tegoon mbir mi ci loxoom mu am ci taxawaay goo xam ne ñëpp gis nañ ko moo mu mu andi relation de confiance mooy kóolute gu am suñu diggante ñun ñëpp nag classe politique bi yëpp ak moom. kon suma fi ñëwee it damaa ñëw seet si samay kilifa. samay wëllëre samay soppe euh, daaneel ci wax nit dañoo ñëwoon nit ci gërëm sëñ bi. ndax biñ ñëw ci màggal bi coalition bi yëpp a àndoon ñëw seet si ko mu am lum ñu wax doonte sax ñun gëmuñu ni moom war nañoo gërëm ñun ñoo ko war a gërëm ci taxawaayam. waaye moom ci niveau bi mu toll toujours day bëgg a wàcce boppam ba niveau boobu gannaaw bi mu waxee lool ba noppi daf ñoo ñaanal daf ñoo ñaanal te ñaan googu gis nañ ko ba gis ci lu kawe suñu njort ci lii ñu génn muy élection locale yi kon politique andiwuñu fi waaye am nañu sañ-sañ bu la nit ñaanalee lu baax nga gis ko boo ñëwee ne ko jërëjëf loolu tam bokk nañu tàkk ñu andi woon loolu daal lañ ci mënoon wax ci gàtt ñu ngi leen di gërëm di leen sant bilaay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara